yow lu ma la mas a wax du dañ lu ma la mas a wax nga teg si bët te amaa Baldé Modou Lo làmba jooju noonu ah! dinaa si wax. mais làmb yooyu la ñëpp di xaar <laughs> ñi dama bu nga wax ko ñi ji moom la cinq la si kattan suñu borom làmba ji day am. làmba ji moom day am moom. mais li ma rawaan bi won wa rawaan bi li ma won li ma won ma gis ka si làmba ji xool ah. li ma gis ah. doomi Fàllaay Balde jooju mooy daan muy Ama Balde loolu laa gis man dama man dama ragal faar man ragaluma loolu de barki Seydina li ma mën sëñ Cheikh ah. borom kiraamay kii téye kaas yi di ko lekk di ko yëy gars yi di ko gis nii ragaluma loolu parce que sëñ Bamba moo ne bismillah yëmmal luwaay bi laa mën aay walanti xaay xam dal di rabbi xeeru rabbi xadaral ma xal bi bi lax ti daay man ragaluma loolu man sëñ Cheikh maa wax loolu borom kiraamay borom kaasi ragaluma loolu lamba jooju li ma gis doomi fàllaay balde jooju amaa balde mooy mooy Dakar midi jox dégg ngeen Cheikh lu mu wax tracé yu mu wax nee na ki nga xam ne mooy amaa balde doomu fàllaay balde bi mooy daan gi nga xam mooy Modou Lo mais te dégg naa ay wax ay sëriñ yu génn yu bëri yu génn ñu ne na Ama Baldé def ndànk seex ñëw dëggal ko ne Ama Baldé mooy daan seex moom fan la ko teg. non man fi ma ko teg mooy li ma rawaan bi woon dama tëdd ba si guddi rawaan bi li ma woon si combat Ada Fass Jos ma ne la ah, Ada Fass mooy daan rawan bi moon loolu la ma woon dama woon nema ma Ama mooy daan man nag li ma rawaan bi woon rek loolu laay wax yow xam nga ne man faruma kenn te lamba ji ñoom lamba ji. maa ngi dégg gars yi ñu ne man da ngay liggéeyal Ama Balde ñoom ñëpp ñu ngi ñëw di ma ko wax. man gars ñu ne da ngay liggéeyal Ama ñoom ñëpp ñu ngi ñëw si man di wax. di wax man làmba ji. mais làmb ji comme que jug nañ mooy Ama Balde te gis nañ coow lu si bëri mooy Ama Balde Modou Lo lu bëri maanaam ñu ne Modou Lo kii nga mooy euh, Boy Niang 2 Boy Niang 2 am Makan ànd nañ ak Modou pour. jéem a daanaka ki nga xam ne Ama Baldé euh, pour Boy Niang mën a bëri mën a bëri combat royal. non combat lamba ji moom si kàttanu yàlla moom lamba ji day am dañ dañ koy bëri moom. Modou moom du bëre kenn balaa muy bëre lamba ji Ama Baldé lay bëree pare doo ko bëre kenn man maa la wax lii man Cheikh borom kiraamay borom kaasi maa la ko wax te dama gis deret yu bari si lamba ji deret. mais deret gis naa si ay sacrifice ay nag ay sacrifice nag wu ñuul ay sacrifice yu garaaw gis naa ko si lamba ay sacrifice làmb jooj du yomb de. ñu war a def estat wala te gis naa si ay accident. maa la wax loolu de gis naa si deret. barki Seydina Limam gis naa si làmbaj deret ju bari. deret ju bari xam nga toog nañ fan yële ma ne la am na koy àndax Balla Gaye ku ku yi di wër day takka jabar muy Aziz Ndiaye waxoon naa la ko fan yële. gis nañ ki nga xam euh, euh, euh, noonu nga moom Ama Balde kële na tudd Eumeu Sène ak Tapha ak Siteu ak Lac de Guiers làmba noonu moom moom moom am naa lu ma si gis mais su ma paree nag am naa lu ma si gis bu baax ah. su ma paree si combat Modou Lo bii ah. boo ma boo ñëwee seet si ma dinaa la wax si làmb jooju kii daan dinaa la wax si làmb kii di daan jooju moom dinaa la si wax ñoom ñaar kii di daan wax la kii di daan sa ngemba gi muy ngembu. yéen nga xam ne mooy euh, euh, diggante bi nga xam mooy Ama Baldé Modou Lô Tapha Tine waaye Siteu ak ki nga xam mooy euh, Lac de Guiers mais tey day ñëw li nga xam ne ñu waxtaan gannaaw bu ñu waxtaan waxtaan li nga xam ne mooy politique gis mel ne Macky Sall Amadou Ba la jiital te gars yi ñu ngi bëgg a Amadou loolu xam nga Macky Sall moom bu tegee Amadou Ba rek sàll Sall xëy na am na lu mu gis am na lu mu yaakaar si Amadou Ba ba yëkki Amadou Ba def ko favori Macky moom mooy tànn mais moom Amadou Ba la tànn Macky Sall li tax mu tànn Amadou am na lu tax mu tànn Amadou Ba waaw am na lu tax mu tànn te moom gis na loolu te instant moom gis na instant pour sénégalais jox boppam pour Amadou Ba falu te élection yi fi mu nekk nii. non élection day am élection day de élection moom day am falu instant yi falu kooku du kii di falu fi élection yi du doon doon waa Dakar de kii doon président du doon waa Dakar de si àll bi lay jóge te falu président bii nii am tur lay doon kii di falu président nii nii nii nii ku am tur lay doon mais du doon waa Dakar moom waa Dakar moom du falu président man maa la ko wax tey. nga xam ne mooy Ousmane Sonko jamono jii dégg ngeen nga lu bëri lu mu jën gis nga li nga xam ne mooy ki nga xam ne euh, mooy euh, li nga xam ne mooy justice ba nekk ba nekk fee nga xam mooy jigéen soog ginnaaw mu ngi àttee ne Ousmane Sonko mun na bokk tey mu ko waxee yàgg na. waaw non Ousmane Sonko mën na bokk Sonko mën na bokk mën na bokk gis naa loolu bi ma waxee loolu yàgg na mën na bokk. tey saa du yàgga tuuti sax moom du yàgg tuuti sax gis naa sañu ñu bàyyi ko gis naa gis ñu bàyyi ko mu dem gàlleem ñëwaat gis naa loolu non Sonko moom mën na bokk moom mën na bokk man gis naa loolu bu baax gis naa loolu bu baax mais réew mi nag na si dama dafa am lu ma gis fan yi am na lu ma gis lu garaaw doo gisati dama gis ni dama gis coow lu war am fan yi du yàgg si genre coow lu war a am fan du yàgg coow lu war a am du yàgg coow lu war a am gis naa ko fan yi ah, kilifa ah, benn kilifa bu war a wàcce genn kilifa gu war a génn àdduna gis naa ko du yàgg gis naa kilifa gu war a génn gis naa loolu du yàgg kilifa gu war a génne àdduna gis naa ko fan yii nii du yàgg maa la wax loolu lu ma la mas a du dañ lu la mas a wax nga teg si bët te ama non man moom instant bi nii waaw instant bi dina dinaa génnaat bu combat bi passé dinaa génnaat parce que temps yi waaw xam nga dama duggoon temps yi dama duggoon xalwa waaw loo tax xalwa laa newoon nag moo tax waaw te man moom li may génn sax bariwul li may génn bariwul te gars yi moom nañ client yi nañ ma comprendre rek Europe États-Unis yëpp nañ ma comprendre parce que ñu jot ma rek loolu problème la loolu du si man. man ma woo ne ma Cheikh mun ñu ko woo ba jot la yan numéro ngay joxe. non bu fekkee man sama numéro moom 78 la moo ne si beneen émission bi 78 136. 23 71 boobu moom mooy suma numéro waaw ku si dugal nag yow mën na si dugal sa numéro yow mu dugal sa numéro waaw bu ngeen leen si émission bi nga ko porté rek man ku ma jotul lek mën na la jot waaw am na suma benn numéro kooku sama bëkk néeg la quoi ku ma jotul tam mën na ko jot numéro boobu noonu waaw mooy numéro boobu noonu mooy mooy numéro bële mooy 77 waaw 042 25 042 99 25 waaw 042 99 25 waaw ku ma bëggate mën na ma jot tam si numéro boobu kaamaan nañ ma nañ rek day fekk instant may nekk si liggéey moo tax su ma beneen journaliste day mer rek yow sax da ngay mer da nga naan ñu bëri lañ lay woo si sëñ bi jot ka problème la waaw nañ ma comprendre rek ba si passeport yi yëpp dañ si liggéey mooy passeport yi moo nekk dañ siy job moo ne nii dañ siy job dañ siy liggéey moo nekk nii dañ siy liggéeyal gaañ parce que sànq bi nga ñëwee yaa ngi ma fekk maam ay xaatim yi ma doon bind xaatim yi nag yi mooy xaatimi jaaru bi moo nekk nii jaaru bi waaw xaatimi jaaru moo nekk moo ne nii mooy xaatimi jaaru yi parce que turi nga siy dugal boo si dugal turi kaaw maa si laa leen liggéeyal day tiggi sa bunt wër sax lépp lay def kenn du man si yow dara da nga ne Europe gars yi duñ la wër waaw bii nag mooy bii mooy xaatimu làmmañ ak cat waaw ba si wàllu soxna wàllu jigéen bii mooy ne xaatim moo nekk noonu waaw làmmañ ak cat bii nag mooy xaatimu xaatimu xaatimu boole moo nekk nii mu boole moo nekkee nii xaatim bii mooy xaatimu dëddaale moo nekk nii mais fii ngay dugal turi quoi turi fi ngay mooy xale yu jigéen yi ak góor yi xam nga ñoom ay relation rek moo leen yitteel xaatim bi waa ko ne mën na ko def sëy wala nga def ko sa jabar yooyu fii ngay dugal turi yi xaatim bi moo nekk nii mooy xaati mu dëddaale moo nekk nii bi moom boo ko boolee tur ak tur si kattan suñ borom lépp yàlla dina def lii gën mooy xaatim bii waaw yeneen nag mooy jaar yi ñuy takka waaw ñun moom waaw chaque jour ñu ngi si daal mais li ñuy client yi nañ ma comprendre rek nañ comprendre sëñ bi rek parce que sëñ bi moom ñi ko soxlaa ñoo bari nañ ma comprendre rek waaw buñ ma jotul rek dinañ la mën a jot. waaw li may tàggatoo rek mooy dëkk bi Sénégal dëkk bi am jàmm jàmm la ñuy woote rek dëkk bi am jàmm ñu xool si yeneen dëkk yeneen dëkk yaa ngi di daanu immeuble di daanu lu si ne ay Turquie fépp amoon na sax Maroc waa morok mbokk yi maa leen maa leen di ñaan. waaw Maroc maa ñaan li am Maroc fan yi métti na mais ñu ngi ñaan lii gën yàlla def lii gën chaque jour ñu ngi ñaan mais Sénégal moom jàmm am na fi jàmm am na fi gars nañ booloo xooli rek bu élection yi nag jotee kii yàlla def kooku mooy falu président ñu def na yàlla kii moo fi tegu waaw te yi nag nañ wàññi quoi nañ wàññi gars yi ñu wàññi bu baax la ñuy def moom waaw nañ ñaan yàlla rek dëkk bi am jàmm jàmm mbooloo mooy doole suñu équipe nationale bi ñëw war a jouer coupe d'Afrique nag ñu ngi ñaan nag yàlla may ka ndam te Coupe d'Afrique bi moom moom moom moom dinaa la si wax lu leer waaw Coupe bi li ma si gis moom dinañ sori moom dinañ avancer après nag dinaa la wax kii di jël final bi si kattan suñ borom. Ah, cheikh internet yu Dakar Midi gannaaw ba ngeen gisee ki nga xam mooy a gis ngeen ko kaddu yu muy yëkkati ak kaddu yu muy yëkkati li nga xam mooy si sow bi si li nga xam ne moom la yëkkati li nga xam ne mooy si réew mi ni ak kaddu yi nga xam ne moom la wax ki nga xam mooy Ousmane Sonko ak yi nga xam ne moom la wax ki nga xam ne mooy. Eh, eh. Alane Ndiaye moo dëkk Yoff day jaay madda nga jàppale waale ko rek mooy kiloon au pour nga defal ko pub nga defal ko publicité jaay madda ñii ne États-Unis ne Allemagne yëpp Alane Ndiaye moo nekk Yoff sama madd man waaw non maddam sa madda na la ko indil Alaaj Njaay mooy jaay madda mooy kilo oon démb na nga defal ko tit waaw ku baax la quoi te ku nangoo liggéey ndaw lu nangoo liggéey Alaaj Njaay moo dëkk Yoff madda yu neex lay jaay mooy jaay ñi ne États-Unis Allemagne ñëpp ah, gis ngeen ko ah, kon El Hadj Ndiaye borom yi maa ngi la koy eh, ziar di la jox sa wàcc waaye borom madd yi ne waaw ah, moom sa réew borom tok mu ngi laaj gars moom sa réew dafa xawoon a jàpp instant dafa voyagé woon États-Unis nee mu ngi ziar gars yi moom sa réew gars yi aimé ka aimé lien waaw instant États-Unis la dem nag moo tax nee na bëggoon na ñëw si émission bi tey loolu tax ñëwul moom sa réew. waaw gis nga ko kàddu yi mu yëkkati euh, euh, ndax li ñu joxoon si waxtu jeex na ak ki nga xam mooy Cheikh borom kaas yi nee naa kaas yi moom si euh, ki nga xam mooy sunu. maam sunu papa si karamax fa karamax fay laa ko doon gisee da grand saltige boobu noonu laa doon gis muy yëy li nga xam ne mooy verre tey seex ñoo defaat ko di xale mu ndaw di jeune mën li muy def xam am xam-xam lool yàlla may ko lool ku mu gisal su ne la lool la ne lool la su mu lu gisal su la ñaanalee da nga xam ne kii kat ngand la mun na lu muy def te gis nañ ko ñaanal na fi ay mag. ñi ne États-Unis ñi ne États-Unis ñi ne États-Unis ñi ne Europe ñooñu maa ngi doon seetal maa ngi doon seetal seet gi maa ngi koy defee vingt cinq mille mais ñii ne fii Sénégal am na ñu may seetale quinze mille am ñu may seetale dix mille. maa ngi ni jàppal parce que yow yaa waxaa man ne ma client yi ne fii Sénégal wàññil leen nga defal leen dix mille parce que yow sa jëmm yaa tax may def loolu yow yaa tax may def moo tax ñi ma mujjee seetal fan yi 10 000 laa leen defal mais fekkee ñu ne Europe moom du ma ko wàññi 25000 laa koy def. dégg ngeen ah, kàddu yu mu wax lool man fa laa war a ñëw ndax ke ku gis kii xam ne Cheikh ah, borom xam-xam la yàlla may na ko ndax affaire da ko doon ñi nga xam moom si ay maamam tey gis nga ay équipe nawetaan yu muy ñaanal te ñi day ñaanal ñi nga xam ne mooy artistes yi day ñaanal nga xam ne mooy politiciens yi ñaanal ñi nga xam ne mooy mbëri dégg ngeen Ama Baldé Modou Lo lu mu si wax nee na euh, ki nga xam ne mooy euh, Ama Baldé mooy daan ki nga xam ne mooy Modou Lo Tapha Tine euh, ak ki nga xam ne mooy Eumeu Sène dégg ngeen kaddu yu mu si yëkkati ki nga xam ne mooy Siteu tamit ak ki nga xam ne la Lac de ngeen tamit kaddu yi nga xam ne moom la yëkkati waaw waa Mbengue waaw ay seen Mbengue ñoom ñëpp waaw ay seen Mbengue ñoom ñëpp waaw mën nañ muñ waaw ASC yëpp mooy ASC yu nekk daal yi nga xam mooy Ngor Woof Ngor Woof Wakam yooyu ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di ngeen ki nga xam mooy Cheikh di leen jox dig daje nag euh, ndax xam naa yàggatul dara ndax instant dafa war a dugaat ndax lu muy toogaat Sénégal lu muy toogaat Sénégal bëriwut ndax moom pour nga xam su moom sax ndax gars dañ may woo sax ni ma cee cee cee sa sëriñ bi woo ba sonn na ko fexe ba jot ndax lu si bëri nag day dugg li nga xam mooy xelwa di leen jox dig daje ba fan yi di ñëw incha allah jërë ngeen jëf